nga ni. ah waaw euh, tey <laughs> tey. Euh, gis nga boo nee piip fii ma toog laay jóg. Euh. wane ko nemm rek ma yor la. xam nga su xam nga nemm rek ma yor la. xam nga dañuy man satara ayca demal ku suturaal. waaye yooyu yëpp waxuma ko ma ne nemm rek ma yor la loo indi tey. yow Boubacar Samba yow ah, damay ñaan li ma daan ñaan de. waaw saa ah. sooy bu bu toogee ci plateau bi day defante rek. Ah, waaw vraiment waay ndeysaan kii wax soowu jàmm foo fa meew ma tax. même ñi réalisé nee nañu euh, su kaa toogee dañuy sonn. dañuy sonn meew mi ne naa meew fii la même ñi réalisé dañuy sonn su kaa. kon yéen mercredi nu ngeen di def. kon yow lii niki suba. ayca tey tey victime net mooy. noobul noble la tuddee boppam. noble xamoo ko. ah waa noble waa xam naa moo bi de. waaw noble benn waay la bu tuddee boppam noobul ca Mbàkke ca Touba. Noobul moom la fi waa Safinatul Amaan defe naa duma woon ci weer yee ñu paase euh, bañ ñee dañ ko fekkoon muy football donte ni nee na footballul leeral na ko ak la ca xew mais daal lu mu ci mën a xew daal làppali woon nañ ko moom Noobul. Noobul demaan nañ ba yàgg sëriñ euh, Maxtaar Mbaak sëñ sëñ euh, mun taxa joxe ndigal ci ñu yaatalaat dëkk bi ci yenn mbir yu désordre yi ne ci dëkk bi ñu dagg garab yi dindi yenn mbaar yi. moom nag génnoon na di ñaawlu daal ci façon bi mu amee que ni Touba amul usine amul am njàng amul dara lii la ñu am pour daan suñu suñ doole ba mu waxee loolu nag moom ñu ni fa ñukk waxam jooju dem jëli benn audio buy wax ni Baye Fall ay nangam lañ di leen xas jël photo noobul taf ko ca vidéo boobu mu mel ni noobul muy wax dañuy dañuy dem xoole naqarlu gi mu ko naqarlu bu ñu paree ñu dem xoole vidéo bi nga xam ne site bi moo dugal audio boobu lañ ca waxante après ñu ñëw déglu euh, Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Baara moom itam intervention bu rafet bi mu ci def bi nga xam ne démb bu dul woon ak moom daañu taal noobul taal police ba taal ña fa nekk ñu dem déglu premier élément bi te dellu si waat. waaw asalaamaaleykum maa ngi ziar bu baax a baax a baax tey indi ay leeral muy boroom site bi muy jotaay jotaay bi TV la mu dugal vidéo def ci noobul contre Baye Fall yi loolu may nekk loo xamante ne ni lu ma mettee noonu ci sama dund amul di ko wax ne amul lenn lenn loo xamante ne nii ab Baye da koy def muy nekk loo xam ne damay metti li ma metti lenn la mooy ñi nga xam ne dañ fee ñëw di ay sàmba booy ñëw fii nii yàq te kenn santu leen ko ndigal jugee ci Baye Fall yi ne ñi ñëw ci marché bi sëntuñu ko kenn ñu yàqal ñu ñun ñii yàqu suñu place ba dara nekkatu fa loolu moo nekk lu ñu ñaawlu te fekk na fa ay nit ñu baree baree baree baree bare te bën fay ñëw ñoo ngi ànd ak seen kilifa ñu ñëw fa yàqal ñu te kenn yebalu leen fa muy ñi nga xam ne ñoo ñoo àndoon ak Murit Mbay man li may wax lu wér la ay taalibe Murit Mbay ñoo fi ñëw yàqal ñu bokkut ak Baye Fall yi nga xamante ne ni dañoo nekkoon ca corniche di liggéey di meetare di liggéey liggéey bu jaar yoon ñii bañ na ko ba ba ñëwee ay matériel sax yoruñu ko liñ doon yàqee place yi fii lañ ko jëlee muy suñ baay yi fi ne woon moom lañ jëloon di ko dóor ci seng yi di ko yàqee yàqu finna loolu bokkul akub liggéeyu Baay Faal bañ na ko ba bi doon ndox bi ñu fekk fii dañoo jël paaka bënn ko ndox mi di tuuru ci suuf ñu koy ñaawlu trop loolu la ñuy ñaawlu sànq am na benn kilifa Baay Faal gu ma woo di ma leerlu ma leeral ko ñi fi ñëwoon bam ne ma loolu ñun dinañ dinañ ko saytu dinañ ci jug ndax kenn yëbalu leen fi li ma wax nag lii laa lii laa wax amul leneen loo xamante ni nii daa nekk ci sama vidéo bu ma waxul lu mel nii ndax biñ fi ñëwee nin doon yàqee noonu laa taxawee ñaawlu ko ndax dañoo ñëw ak yàqu fitna bañ na ko biñ doon ñëw dañ doon daw suñu bagaa sax nanguwuñ ñu génn ko yàlla seede suñu bagage sax nanguwuñ ñu génn ko yàlla seede na ko ñu ci baree baree baree baree bari voilà kooku mooy euh, Noble euh, euh, loolu ñu taf nag ci côté bi mooy site bi nga xam ni nee na moo dugal vidéo boobu nga xam ni photoom lañ taf waaye ka cay wax du moom moom kàddu yi la yëkkati woon léegi nag ñu dem déglu ginnaaw bi site bi dugalee yi woo na borom site bi téléphone ñoom ñaar ñuy waxtaan seen discussion ñu dellu siwaat kon dèjà mënu ma jël sama téléphone woo la xam naa ne li na la ma jéggal la après nag ko ni doo ma xam naa ne li métti na la vidéo bi dindi naa ko et puis naa la pour jéggal après nag yow moom li des moom yow la mais man waaw li mu war yow waaw ma lay laaj mooy yow fan nga dëkk fan nga dëkk. loolu lépp amul solo li ci am solo mooy wax naa la noobul woo naa la téléphone. vidéo bi métti na la man moom naa ko woo la téléphone jégalu la. waaw yow fan nga dëkk. man Touba laa dëkk. fan ci Touba. loolu laa lay fan Touba. dama lay laaj mm, dama lay laaj. il faut waaye léegi dégg nga déglu léegi su na la dinaa vidéo bi yëpp yi maa ngi leen a jégal léegi da nga maa jégal wala la. yàlla nañu ko suñu borom atte ba ilaa yawmi diin du ma la jéggal du ma la jéggal billaahi la si laa ilaaha illahu du la jéggal parce que lu ma gën a méttee nii ci addina amul da nga maa bëgg a jaxasee kilifa yi xaw ma da nga lan nga ma bëggal man may gone gu ndaw nekk Touba jàngee Touba non non billaahi la si du ma la jéggal waaw waaw da ngay rek man war man man yow waroon na maa xam yow fan nga dëkk ci Touba waroon na maa xam yow fan nga dëkk ci Touba barke sëñ Bamba guddik tey du ma nelaw te gisantewuma ak yow parce que lii nga ma def nii. voilà mi ngi noonu euh, ma ngi jéem a xotti xormay li saa doon wax ci suba ni na dem ci yoon jombul bu ñëwaatee ci plateau bi am na lu ngeen koy conseillé ci waa ji mi nga xam ni moo dugal ay waxam ba tax baay Fall yi làppali ko taal ab otoom. sëriñ euh, euh, Saliou moom sëriñ Baara jot nañ ko ci suba moom mi nga xam ne dem moo intervenir ngir mujj ñu ko duma mujj ñu ko taal ñu dellu si waat waaw solution yi mu daanaka yow wax nga ko sax ndax am na lu mu wax moom waaye liñ jot lu mu cool yi moom waxu ko hmm. comme ni nga ko waxee dañuy jël ay kàddoom tegale ko li ñuy wax montage hmm. wax ni moo wax nangam waaye ginnaaw moom bari xam nañ ne waxu ko waaye lu mën a xew rek njuumte la ci moom hmm. ndax yaakaar naa ne waxam ju ndëkk ja bu ko waxutoon mën nañ ko bañ a montel comme niñ la ñàkkee daal niñ ma ñàkkee daal njuumte li foofu la nekk rek kon dafa baax bu yu mel ni amee rek boo ci amul kàddu goo xam ne daal luy luy defar la loo xam te ni daal kenn du ci am loo ci xale yaat da ci gën mooy ko nag mhm. ndax nit ñoom danañu moonte waaye ñaar ngeen ñu sos di yomb dëgg la xëy na ni mu waxee ki ko monté dafa jàpp ne moom ni mu waxee rek moo nekk ci moom wala mu xool loo xam ne mhm. bu ko defee dana gën a yokk dana gën a dëggal ay wax xam wala dana gën a wane ne moom li mooy li mooy li ko metti mhm. waaye tooñ na ko nag tooñ na ko tooñ na murid yi tooñ na képp ko bëgg lu baax Uh-huh. tooñ na boppam it également ndax am na loo xam ne yëfu jullit uh-huh. donte xaw ma kan la ndax jullit waaye tooñ moom yàlla sant ko kenn léegi kon ñu gis ni nag euh, loolu xew ci Touba bari na ci ñoo xam ne ñu ngi ci yëkkati ay kàddu ba am sax ñu wax ni Serigne Mountakha du lum santaane kon Serigne Mountakha moo santaane lépp loo xam ne Baye Fall ñu ngi koy yëkkati muy ay jumtuwaay foofu la ci Touba maanaam cant ak santaane la ko jógee ci Serigne Mountakha. li Baye loolu mu yaakaar naa ñu bari dégg nañ ko ndax wax naa ko ci sama ay waxtaan yu bari mën na leen bu ñu bu ñu xoolee li sëñ bi santaane ngir ñu yëkkati ko ba mhm. loo xam ne nit dafa ñëw fekk ñu daaneel ko daaneel lu ñu këru jàmbur mhm. daaneel lu ñu magasin jàmbur boo xam ne tabax na ko fa ko war a tabax mhm. donte nag am na ci yu ne ci kanam magasin yoo xam ne nit ñi ñoo koy def te bokkut ci li nga xam te ni seen moo mel la wala ci li nga xam te ni day xañ kenn ak xam wala yelleefam waaye yaakaar naa ne ko yoo li ko suñu borom may yàlla na fi gën a yàgg loolu te ànd ak wér. mu nit koo xam ne kuy xalaat la ku am gis-gis la. Mm. ku bëgg jàmm la ku bëgg lu baax la ku bëgg lu rafet la. boo mm. waxuma la sax ci yoon yi mu jiite. Mm. waaye Sénégal gi ba ci Afrique ba ci àdduna bi yëpp gis ngeen barki dem li def Turquie. nit nag dafa dafa dafa xaw a lëndëm te te ñàkk gis ni man. waaye dama ko joxe misaal rek ci su doon yow sa yoon yoonu njëkk mosoo xam fu ñuy ñawee mosoo koo gis. nga dem jënd sa yére nga jox ko sa benn téer mu nga tiim mu koy daggate da nga naan ko yow yàqu nga sama yére bi waaw dëgg la te moo ne bu noppee day da nga ci suturlewu danañ la ne sa nangam ji rafet na hmm. loolu la sëñ bi bëggal dëkk bi loolu la sëñ bi bëggal réew mi loolu la sëñ bi bëggal Afrique hmm. lii nga xam ne sant na ko Baye Fall ñi di ko def hmm. ku fi yàlla bàyyi te yàlla na te yàlla ko jiite ci kanam tuuti danañ xam ne sëñ bi buñ ko sañee wax dañ naan yéex na ko def waaye lu jot dina yomb waaye sëñ bi jógul ngir yàqal kenn sëñ bi jógul ngir xañ kenn sëñ bi jógul ngir ngir ngir ngir néewal doole kenn. Ah. amoon na sañ-sañ yu sax dajju suñu kër yi wallaahi azim am na sañ-sañ. waaw te def waaye li nga xam ne mi ngi ci mbedd yi nag bokkut ci li li li ñenn ñi jël. wala wala mu ëllëg ñu naan lañ fi loo xamante ni tamit moom moo ko mën a xam ak ñi ngi ko seqal. Hmm. kon am na ci loo xam ne buñ ñu nee nangam dañoo war a ànd ci li sëñ bi wax. rawatina nag muy loo xam ne suñu njëriñ la. Hmm. kon daal euh, noobul ginnaaw dem sa intervention bi nga def euh, bàyyi nañ ko mu ñibbi ci njabootam waaye ndax euh, topp nga mbir yi ba bu ëllëgee buy dox ci mbedd yi ñu xam ne lii kat jég sëriñ bi jégal na ko kenn waratu koo laal. waaw sëriñ bi moom wax naa ko ko barki dem lu jiitu lii di am. Hmm. moom ci boppam dimanche ci ngoon gisante nañ. Hmm. ma ne ko li nga war a def mooy dangay def benn vidéo boo xam ne bu ko jaree sax man mën na maa toog dend ak yow soo waxee ba nopp ma dugal mu ne ma man defuma dara ma ne ko loolu tax nga war a jéggalu ginnaaw defoo dara dañ laa monteel ki la monteel moom nee na woo na ko ma ne ko woo googu du doy la nga war a def mooy nga ne ko defal fa ko monté woon nga démonté waat sax wala monté waat leneen waaye woo la yéen ñaar ngeen wax amul njëriñ nii laa koy waxee yàlla moom may moom mi may dégg ma ko nag la nga war a mooy da nga koy wax ne ko moom moom mi monté woon mu def démonté ko baa monté waat leneen loo xam te ni dana wane ne yow lii mooy say wax léegi du say wax waaye yéen ñaar seen wax bu yemee ci biir nit ñi duñ ko yëg dëgg la ma dégg ñu ne dimanche am na ñaari Baay Faal yu ñëw fekk fa muy liggéeye nar na faa indi ay coow man na ko nag lu mel nii laa lay bañal ndax mbooloo dafa yaatu sëriñ bi moom boo ko waxoon leneen lu lii du la topp dëgg la waxuma la waaye nag ginnaaw donk yi moom kenn ku ci nekk da am foo toll ci sëb sëriñ am nooy doxee ñu am nañoo seenum xel ca ci loo xam lu ñuy def dañuy xalaat am na ñoo xam ne moom seen sëriñ yëmënuñ ñu bokkul yàlla bind te loolu bokk jar nañu ko kon dafa doon jaadu nga wax ba àdduna bépp dégg la rawatina nga wax ci ay kanamu kilifa dëgg la loolu laa ko santoon. Uh-huh. bi mu ko deful nag démb ci ngoon bi ma woowee ne maa ngi nii ci loxoy takk der yi. Uh-huh. ma ko sax man damaa jàpp ne day def ay ay waaw moom sa waa jooju <laughs> ko da ngay kaaf a ne ma kaafu ma daal di may jox police bi. Mm. police bi wax moom it ma ne ko da ngay présenté wu. ma xam ne yow police nga waaye woo na ma man la diw ma yaakaar ne complice la. Mm-hmm. bi police bi présenté wala xam ne lu sérieux la. waaw mm-hmm. daal sama oto dem fekk ko ci ci poste police bi may egg fekk naa oto bi moom mi ngi tàkk. fekk naa fa mbooloo moo xam ne kenn mënu ko natt moom. Mm-hmm. mais yàlla suturaal nañu. ci barkeb sëriñ bi. Mm-hmm. ñu bari ci mboolem ñi ngi naan yow. ginnaaw yaa ngi ci buntu bi ñun duñ dugg ci police bi la taal ndax duñ taal sët suñ tubaab. waaye bu doon ñu nag police yi rek niñ taali oto bi la ñuy dugg ci biir ko. nga laa fa nekk ba vingt vingt heures nangam. tamit ci biir police bi laa ko jullee ndax ndax ñàkk koo bañ a bañ a bàyyi. Mm-hmm. ngir ñu dal ci kawam. dëgg la ba kilifa yi yëg ko. yónni sëñ jiili moo sëñ Modou Aminta ñëw na fa sëñ Bada Fall sëñ Soxna sëñ Soda. Mhm. ñooñu ñëpp ñun nga xam ne doom la ci xalif bi xalif bi. maa ngi koy nuyu bu baax sëriñ bi. Mhm. moom mi nga xam ne moo fi nekk Cheikh la. Mhm. wax yàlla suñu mbokk def na ndox mu sedd ni ñu koy waxee. alhamdulilah waaw don donte fay ak yàlla moom ajiwut ci ndox mu sedd noo koy waxee noonu rek. alhamdulilah alhamdulilah Mbacke Balla kon jëf ginnaaw interview. voilà mi ngi noonu xam naa ni euh, topp la euh, moo doo ngay kolon kolon yi ca ca machine ba Euh, waaw topp la topp daggoo élément bi normal li nga ci dégg maanaam fin bi lañ soxla woon ah, waaw l'essentiel bi lañ soxla woon euh, loolu lépp tooba ko rambaambasal <laughs> ba mu agsi foofu bàyyil topp Omar euh, gis nga li xew ñu bari nee nañu daal xale bi ñàkk ndigal ak teggi ndigalul Sëriñ Muntaxa moo ko yóbbee li ko dal ñu duma ko taal otoom ba bu du woon ak sëriñ bii ñu doon jël dañuy taalaale police ba mhm. hmm. léegi man dama bëggoon laaj tout d'abord gërëm sëriñ bi di mujj wa wax waaw parce que taxawaayam rafet na te lii rek la xaar ci kilifa parce que mbir mi mënoon na jéggi doyo ëpp loxo ba jur leneen maanaam nobal li mu koy wax rek yàqule moo gën yàqu moom bu ci jotee ci place bu yàqu oto bu yàqu na sant te utiwaat leneen te yenn saa yi aussi tamit nga xam dëkk bi nga ne waaw nit day nitee boo gisee ñu naan nit day xam bañ a xamadi maanaam yooyu yëpp day am place bu ne la mu laaj jox ko ko jox ko ko Euh, parce que fi nga nekk maanaam daa am ñi santaane ndigal am ñu ko war a jafe mm-hmm. kon ñooñu jafe gañuy ñuy jëfe ndigal gi yow ànd ceeg ñoom rek mm-hmm. te xam ne du yow rek yaa yàqule mm-hmm. xam li gën a bon ci àddina mooy nekk ci bërëb ne man may sañ wax la Seydi Hadji Malick doon wax maa ko sañ a def maa ko sañ a wax man rek maa ko mën ne nañu maytu loolu waaw moom tey jii ñi yàqule bari nan mais ñu bari jëfe nañu ndigal jàpp ni dëkk bi mooy doxee noonu te nag ña jël ndigal la di ko teg teguñu ko ci seen bakkan mais gëm naa dañ ko teg ci defar parce que gisoon na benn anarchie bu amoon ba mu jur ay incendie ci marché bi léegi ñu ne nañuy defar alors ko defar boo gis nag da ngay yàq ba pare doog a defar kon moom tey bu dee ba kàddoom rek ci tey ji ba jur lii léegi nag moom euh, li ko def victime mooy ki ko enregistré waaw kooku da ko tooñ. bu dee xaw ma ndax sax moom la. donc dafa am ku jël photo am. Hmm. taf ko ci yeneen wax yoo xam ne moom waxu ko. te wax jooju dafa lié ak. wax jooju waaw wax jooju eh, moom. non moom waxul wax jooju. léegi nag moo tax mooy deuxième élément hmm, lan la ci jublu lan la ko bëggoon yàqal tey kooku moom ku ñu war a topp la parce que kii li ko ci mën a fekk moom daa bari hmm, loolu daa man ni na sant ci oto bu yàqu place bu yàqu parce que li ko ci mënoon a fekk daal parce que tubaab dana une foule ne réfléchit fa am mbooloo du xalaat te tey jii bu ca marée de tal leneen xewoon tey jii dañuy ndeysaan rek fa lay mujjee kon nag moom tamit mu gën a éduquer boppam parce tamit booy bi am na tur paraît-il que day nekk ci réseaux sociaux di def comédie TikTok yooyu gi ñoomin seen mais des fois am na loo xam ne kenn du ko café moom la wala du moom mais am loo xam ne kenn du ko kafe dëkk bu ne daa am nu muy doxee dëkku ndigal la te wàccoo ndigal rek pour man moo lay may jàmm ci dëkk boobu di Touba d'accord jërëjëf Omar su ka pour dëggal Omar li muy wax àjjuma man bi mbiri xew fa la ma fekk ñu amoon xew foofu la ci Touba bi faa Fall ñëwee xam nga dañu doon màjjaalaale añ bi amee 4 ba 5 yu ñëw di màjjaal añ biñu leen di tibbal ma tooñ kenn ki daan ko yéen yéen a ci dëkk bi di toj rek mun sëñ sëñ Muntaxa bu da doon sama kër bàyyi sax ma toj ko. waaw pour dëggal li kii wax nii. Euh, bi dafa am benn booy bu nekk Tuubaa dafa ma woo. ma wax bu bu daw yaram daf na ma li sëñ rek ko mën a santaane jàmm am. waaw mun ma li mooy Tuubaa mu ne mais li bu ko keneen santaane woon neneen lay demee pour wala fi ñu teg sëñ bi. macha allah parce que euh, dañuy wax ni ndigal jëfe. waaw ndigal jëfe xam nga ndigal jëfe te sëñ Muntaxa day koo xam ne lu mu lu mu wax rek dañ koy def. Mm-hmm. Euh, moom mi xam nga amal wax na ko nit boo nekkee ci dara surtout nga nekk ci dëkk boo xam ne ndigal la ñuy jëfee da nga yaru. comme dëkk bi lii la bëgg daal def ko. def ko merci. waaw loolu li nu bëgg def ko mais ngay wax ba nu jël say <laughs> am na sens. dama xam jooy jooy kenn wanewu ko mais ak <laughs> wax dëgg yàlla am na sens yàlla na ko yàlla jàppale te ki ko kii nag tamit tamit ki ko ki nga ki nga xam ne. borom sit bi waaw ne ko porte plainte bu doon man mais baalu na ko te tamit ku la baalu ak da nga koy baal mu topp ko waaw na ko borom sit bi bu mu ko na cee am problème lu baree ba mënoon na cee mënoon nañu ko ci dóor dóor yi mënoon nañu ko ci rey wala ñu am nee nañu ko ci def. na ko na topp ci yoon mais dana moom na na ba nekkuwaat bu baax a baax. Mm-hmm. xool fi muy teg tànkam. d'accord voilà Adja kon waa ji li ko dal yëpp borom site ba ko dugal la ba ko sawaay wooyee sax lànk na nee na ko ma daal Touba laa dëkk waaye du ma la wax fu ma dëkk ci Touba mu mel ni li xew lépp taal oto beeg lépp borom site bi dugal ay waxam la. waaw loolu la euh, man su mi naan na ko baal bu mu ko baal. bu mu ko baal parce que bakkanam xajoon na ci gis naa vidéo démb ci guddi bi muy jooy ni ñu ngi taal sama oto ñu moo ne vidéo bi ñu taal oto bi mu ne nee nañu dañ may rey maa ngi ci biir garage xaw ma lan donc euh, dañuy renvoyé waat rek ci site internet yi gis nga bëgg jaay bëgg vue bëgg buzz bu mu tax nga sacrifier doomu jàmbur. Mm-hmm. moom aussi am na gis naa ko bi ñuy bi ñuy démolir table yeeg yooyu noonu parce que aussi lii ni nu yaatalee mbedd yi man je crois que lu baax la xam nga lu tax parce que ñaari yoon lakk am na fi pompiers yi mënuñu accéder fi lakk bi am ñu koy wax rajo yeeg télé yi ñëpp wax ko ñu dégg ko kon xam naa ni xataayu marché bi sëñ bi joxe mais ndigal jëfe dëkku jaamur nga nekk mm. Touba dëkku sëñ Touba la ak njabootam mm-hmm. wax dëgg yàlla leneen neex a fay dox maanaam ku bëgg a neex daal da dem da ngay dem ca falanti saf wala fa nga moom yow mm-hmm. mais Touba dëkku jaambur la waaw mi ngi noonu dëkku jàmbur la mais borom site bi moom na ko topp ba ca yàq ba na ko porter plainte ay ca mi ngi noonu ñu ngi koy mais nag ndigal moom mm. jëfe jëfe mi ngi noonu ñu ngi koy nuyuwaale baax moom uh, Serigne Moustapha Mbaye ca Touba uh, nuyuwaale Serigne Moussa Nawel alaaji Sanjoogu waaw mm-hmm. noo gis man de uh, li nga xam ne moom la njëkk a wax defe naa ne ñaan la ci ñi nga xamante ni jox nañ leen digal ci bu ñu ñëwee mm. ñu may leen pour ñu pousse seeni bagage parce que defe naa ni waxul sax waxu opposé wu pour bañ li nga xam ni mooy toj bi bañu ko mais comme tey parensaa yi ñu ñëw ci bërëb nga gis ni euh, may leen délai daal yëg yëgal yëgal yëg yëg nañ ko mhm. parensaa yi sax nit ñi dañ koy yëg mais di di tàmbale naan bokkuma ci ak bokkuma ci mhm. mais parensaa yi nga gis nit ñi ñëw ba yegg si tamit nga xam ni ci lañ bokk mhm. ñu war a ramasser seeni bagage am na ñoo xam ne moom ni mu doon waxee sens bi moo njëkk a dégg mu wax sensu pour euh, ñu may leen ñu ñu génne bagages yi. daal ñu mën a toj. du dëgg bañuñu kon li nga xam ne mooy toj bi donc dañ ko monteel montage boo xam ni. Mhm. Euh, méngoo wut moom. kàddu yi mu doon wax. Mhm. bon donc ki ko def loolu nag moom mën na ko reylu man dama jàpp ni kooku euh, dañ ko war a traité comme ku bëgg a reylu nit. Mhm. parce que ma fekk son bi muy waxut lii. ci dëkk bu mel ni Touba. ma ñëw teg ab photo am monteel ko yenn wax yi kooku ci jamono jii ñu nekk. Mhm. ci jamono ji nga xamante ni bi nit ñaa ngi dem di loolu nga indil ko kàddu yoo xamante ni bi ay kàddu diingat la ak ay kàddu loolu. Mhm. laa buñ ko ci reyoon mhm. baal ma du ko dindi. te bu nit ñi teeyul alaaji mën nañ cee reylu ku ne. mën nañ cee raylu ku ne parce que mën nga cee eenal nit defal ko. loo xamante ni jël ay wax yu ñaaw teg. donc nag li am solo. mooy lii bu mu ko seetaan. Hmm. parce que waa ji man waa ji man wax dëgg fa yàlla may wax te et moom mu ngi ree mesuré wut mesuré wut sax li mu def li def dëgg la dana ko def keneen ku ko bàyyi parce que il faut sanction am ci waa ji hmm. parce que yow yaa ngi def nit ki lenn mu naan la baalu ma la mais yaa ngi ree quoi mu naan ko mu naan la foo dëkk nga ngay ree naan ko looy laaj ci fu ma dëkk ak et cetera comprendre hmm. donc soxla wut ay kii fu mu dëkk noobul demal ci yoon boo demee ci yoon danañ xam fi waa ji dëkk. Mhm. parce que waa ji mën na faa def ku ne lu ne. Mhm. parce que doo yor ak site internet defe ne fo la nga fo mbirum fo nga yor quoi. Mhm. mbirum caaxaan di jël ay nit di leen monte di def naka sudut noonu jubluwoo ci lu di ay vie loolu c'est pas sérieux mën a. sànq lu yàq nañ ci oto. mën na moom mooy li gën a ndaw. parce que nit ñi bu génnoon ci jamono jooju ñu rey ko. danañ ko def comme ni ñuy def kii. donc police bi nga xamante bi ñoo ko kii sax mas ñu ngi woon police sax ña nga woon mooy waaw sëtub biir waaw waaye bu fekkoon génn nga ñu taal police ñu taal biir donc police police bi nga xamante ne bi sax ñoom ñoo kii jël nañu risque tee ko mhm. donc ñu ngi leen di féliciter ci loolu nga xamante ni moom lañ def parce que tamit liggéey nañ foofu liggéey boo xam ne liggéeyu euh, bu rafet la mais man moom li may xuus di ci xuusaat mooy na topp waa ji ci yoon parce que doo yor ab site internet jàppee ko ay fo di teg loo xam ni jël kàddu jàmbur ku ku nga xam ne mën nga def kii ba noppi defe ne ba léegi nga defe ne defewoolu kii kii war dafa am ñoo xam ne sony bu mérité wuñu yor ab site si mérité wuñu ko dëgg la parce que yenn sens de responsabilité yi ku ko amul war too ko non dañuy caaxaan ko donc vraiment ñu ngi koy massawu ci li nga xamante ni bi dal na ko. Mhm. donc je pense que ni bon nit ñi comprendre nañ ñi du ay waxam. Mhm. Euh, li nga xamante ni moom la wax. Mhm. li man li ma dégg mu wax gisuma ci muy vidéo bi nga teg gisuma ci loo xamante ni bi lu parce que ñaan la def. daan bu ñu ñëwee nañ ñu may. nañ ñu dimbali may ñu génne suñu xalaatuma xel tegg ndigal yooyu yëpp wax na ko vraiment te loolu mooy ay waxam leneen la nga xam ne moom lañ ko tegee liñ ko teg du ay waxam ka nga xam ni nag moom moo ko def jëf jii fi mu toll nii na mérité nag ñu teg ko ci yoon moom. macha allah voilà jërëjëf alaaji mi ngi noonu euh, euh, pour dëggalal li bi jeex na de ah. waaw waaw pour dëggalal la li nga doon wax léegi. Mhm. ñun bi fi affaire audio jógee ba léegi xam nga ñun site la ñu yor. Mhm. yor nañ comme gars yi ni ñu koy defee. Oh. mais alaaji mii ci responsabilité bi audio aji saar yi di génn dani bu leen ko teg. audio kii waa ji barki démb euh, mambay ñaa bi ñu fi wax dafa fuité. Mhm. barki démb dani bu leen teg. saa à lu ci nekk bu ñëwee da ngay jël ses responsabilités xam li mu mën a yàq. bu wax ji génne nga yem ci wax wax ji te bañ a teg wax ji dafay ëpp dafay ëpp jàmm ci dëkk dëkk am na fu muy toll da ngay da mel ni ku yor télé bu fekkee jàpp ni site internet foo la caaxaan la man nga waaw te télé la télé site internet des fi mu mën a àgg télévision mënu fa àgg da gis kuy seetaan am 10 000 personnes di la seetaan direct télévision yi kan moo ci mën a waat ni la 10 000 personnes dañu lay seetaan tax di la seetaan wasaana jërëjëf kon noobul mi ngi noonu ñu ngi koy masawu di masawu booy yu waaye ji na ko lijjanti quoi parce que ban affaire bi vraiment naqari na ma waaw waaw dëgg la parce que nara na rey lu nit ki ba noppi hmm. tëj amul conscience sax que ne yow li nga def garaaw na. reetaan yi li muy daw loolaa man leen dégg leen waa ji di reetaan. jërëjëf Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Baara moom tam ñu ngi koy gërëm bu baax ci effort yi mu def moom it ba accès foofu la ca police ba ma nga fa woon dem ba vingt et une heures. Mhm. Adja ñu ngi lay gërëm ba alxamis ak jàmm. ba alxamis ñu ñëw ci sëñ Baara nag alxamis sëñ Baaraay victime bi sëñ <laughs> Baara mooy victime di net alxamis ak jàmm <laughs>